القديم بفضلها وبجودي وتجاي di taaw ci cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi ngi gane àdduna fukki fan ak juróom ñaar ci weeru septembre amtu 1988 ci atu romain ca Daaru Salaam way juróom bu jigéen di soxna amina Lo bokk ci njabootu kilifa gu mag muy waa Ndaam mi ngi jàngee alxuraan ci wetu nijaayam sëriñ Ndaam Abdourahman Lo bi mu amee fukki at la bind téereem bu njëkk gannaaw loolu maam Thierno Biraye Mbacke jàngal na ko itam alxuraan mu bokk ci ñi fekki woon cheikh bi ca Mauritanie mu toog fa ba 1907 gunge na ko itam ca Thiéyène foofee la nekk ba atum 1912. 1921 mu jot ndigalu wéjuram Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ngir mu sanc dëkk bi doxoon digganteem ak Touba juróom benn kilomètre bokkoon na ci ay jikkoom boroom xam-xam xam-xam bu yaatu macha allah doon boole doomu aadama yi ngir ñu mën a nekk ci jàmm ak salaam waaye njàmbaaram foo ko nattoon weesu na ko kooku nag mooy cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké atum 1927 bi cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul jàmbar jalaxoo mu doon xalifa bu njëkk ci yoonu murit ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 1927 mu daal di tàmbali jumaay Touba te loolu bokkoon na ci mbébétu wéjuróom bi di cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul mu dajale ay taalibe yu bari ngir ñu defar chemin de fer bi doxoon diggante Diourbel ak Touba mu teg xeer bu njëkk bu grande mosquée Touba ñeenti fan ci weeru mars atum fukki fan ak ñett weeru juillet atum 1945 moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké wàccu liggéey ñu denc ko ci wetu wee juróom bu tedd ba di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ci biir jumaay Touba ji mu tabaxaloon boppam ñu ñaan yàlla suñu boroom yal na yàlla yokku leeram te taas ñu ci barkeem amin